dañu teg hymne national ne ñun ñëpp nañ jóg sargal république te pourtant difficulté ñàkk fi ñëpp xam nañ ne transformation bi am na soo na am na jafe-jafe ndax lu bari li jigéen ñi doon yëngatu tey commercialisation bi sooxe na am na sax activité yoo xam ne dañu fa taxaw madame la ministre damaa bëgg nga bàyyi ci xel bu baax baax nga jàppale ci sa financement financement mooy yóbbu jigéen yi ndax bu dul financé bam boobu ba léegi ñun yëpp fa ñu ngi toog xamuñu fu ñuy dundalee suñu njaboot xamuñu fu ñuy dundalee suñu borom kër yi ndax kër boo dem jigéen mooy taxaw góor yi moom toogu si peeg peeg ba loolu loolu la ñu xam bu passé loolu ñun benn si transformation la ñu am site boobu depuis ay quelques années presque bët na trois ans njëlaw bi moo naawile seng yi wax nañ ko maire wax nañ ko sous-préfet yóbbante nañ ko si si kii président pour ñu waxal ñu ko

fépp foo xam ne mbas mi dal na ci kaw ci nit ñi nga xam ne ñu ngi jóg ci daan seen doole ñu war a mën a ñëw seet num leen ciy jàppale mu nekkoon tey région Fatick ginnaaw pàcc boo xam ne dañ koy jël def ko financement yëkkati na fanweeri million ak ñett yoo xam ne jagleel na ko képp kuy kuréel wala kuy nekk ci activité di ko yëngu biir Fatick bu si kanamee dinañ def remise bons yi waaye yéen waa Bettenty beral na leen loxo yëkkati na fukki million jox ko groupement yi ne Bettenty yëpp loolu aussi ñu indi ay bon la dinaa ko jox léegi gouverneur bon yi danga koy jël yóbbu ko poste ndax poste la ñu lëkkaloon ci liggéey bi boo demee poste fay la mais li ma leen ci gën a ñaax ndax xam naa ne ci loolu ngay nekk mooy groupement bu ne bu jotee financement wam na daje ak ay ñoñam ñu toog waxtaan xool financement boobu nan lañ koy dugalee ci biir activité bi ñu doon yëngu ndax mu gën a jur. beneen pas bi ci des mooy du yem fii ndax foog ñu xool ak équipe yi naka la ñuy mën a waxtaan ak yéen dinañ ci waxtaan ak maire ak conseil municipal bi ñu ut projet de développement durable. seen communes nga xuus fépp ne beneen di laa jëm jërëjëf. madame la ministre ñu dara dimbalee ngi nii ñu bokk ci population sénégalais ñu jara jàppalee ngi nii ma kontaan ci li nga wax léegi nag ministre dafa ñëwoon pour financer fukki groupement bi ñu wàccee mu laajte dëkk bi ñaata groupement fi nekk borom dëkk ne ko am na ñu groupement mais dinaa financer ñëpp. bulo al bulo al bulo al bulo donc ñun tey yaa ngi participer tey politique. yaay personne tamit ci li nga xam ne la président de bi jox sant la ko pour ngeen jox ko askan bi te président li la bëgg ngeen dem au fond du Sénégal xam ni sen jambat xam ni sen naqar moy leen tay jappal dama ne Dakar du Sénégal moy capitale nak mo la dox jox capitale mais nañ considérer àll bi nañ considérer village environnement yi nañ considérer frontière yi te xam nañ Sénégal lañ bokk. au fond du Sénégal xam ni sen jambat xam ni sen naqar moy leen tay jappal dama ne Dakar du Sénégal moi capital est capital mais nañ considéré à bi nañ considéré village Ambremay, nañ considéré frontières Sénégal Nous nous te ñun duñu du côté défendre parce que ay député ay parlementaire défendre askan parce que nous avons une population bi tax rendre défendre intérêt ak les intérêts ndax intérêt yi